ceeg Ahmed Aidara bismillah président ma nga woon ca biir ndox ma de tribune yéene kaay ne waaye bu ñu ko politiser waaye le populaire ne demu Macky Sall ba day ca bërëb yoo indoon na yoo yee waaw lam doon saf daal mooy campagne électorale déet waay ah kay tribune yéene kaay ne Macky Sall dama ne ah nañ ko jàppee woon daal ci zone yu indoon na loo yee noonee kon la ko defee lenn daal maanaam kon moo ñuul na ci doxantu président ba mooy tund yi nga xam ne kon maanaam ñoom la inondation yi kon gën a laal Macky Sall kon tegu fa tànkam géeja waay Macky tegu fa tànkam gunaas Macky tegu fa tànkam yëmbal noor Macky tegu fa tànkam yëmbal sud Macky tegu fa tànkam Pikine Macky tegu fa tànkam dañ leen a zappe de yéene kaa gi ne président day la mu doon bañ ah mooy mer gi nga xam ni kon askan wi ndox mi kon lor leen nii mer nañ ko kon ñu yekk ko ko loolee la doon daw ah daw président koo kee daw deuxième am bi waaw loolee nag neexul askan wa nga xam ni kon ñoo yeewoo ca tund yooyee naqarlu nanu ko tribune yéene kaay ne moo ni day moom président waaw mënoon naa jaar kon ci gox yooyu daal di déglu kon maanaam googee mën a wàcc la populaire ne mën a wa xam ne nag maanaam ñoo fa nekk daal dañoo gàttandu kon président gàttandu meeting politique laa lay wax ni le waaw waaw Babacar Mbaye Ngaraaf ne président Macky Sall ci boppam moo war nag maanaam di moytu di dem fu dul fu ñu koy tàccoo kese la ma war a moytu tamit moom président Macky Sall mooy ay ni daal di muur ay bëtam dégg nga parce que visitu Macky Sall bii saful dara lu dul campagne électorale kese te nag ma ne la yeyoowul Macky Sall bi kon du nuróol dégg nga dikk Macky Sall googee ragalu na de ba pare ñi nga xam ne tamit ñoo yeewoo ci wàllum inondation yii président kon da leen a humilier toroxal leen déet waay Babacar Mbaye Ngaraaf ne ah kay dina cay dolli ne lii nag mooy mandargaal daal soo fal dal ñàkkal fayda waaye tamit ñàkk xalaat goo xam ne kon moom la gouvernement Macky Sall bii nekke ci jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la waa banlieue bii du dund waaw waaw parce que yow di koy yegg ci ay tontu yu toog laa la wax waaw waaw ci sàkkutee fukk sinistré yii président yemu ca ndaxte kër yi nga xam ne maanaam ci la ñu nar a dëj ñi tuxal wecceeku ba la muy jar ñetti millions ak genn wàll kese chantier yi ñu fiy def tamit fukki junne ak ñaar ci ay doomu aadama danañ leen ca wutal liggéey booy xool lañ leen da fay na ci ñaari milliards Omar Faye ci tribune yéene ne président day am na gis-gis de un ah, waaw keroog ba muy wax kon wàllum réew mi kay bu dum wàllu liquide rek ah, def na ko ci wàllu ndox mi courant bi ko fay suba ngoon gu dégg ba cëg di xuy xuy xamaj xamaj waaye dëkk bi kay liquidul ci xaalis déedéet njiital leeral askan waye mu ca ndaxte Omar Faye nee na mais xoolal ma tey ji la benn doomu aadama mënu laa wax ñaata milliards la ñu def kon ci wàllum opération inondation yi la kenn mënu la ko wax ay milliards milliards la yow ca jamono joo xam ne nag maanaam ñu ngi waxtaanee kon jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nimiku ci wàllum inondation yi tribune yéene kaay njëkk ak ñin ci jafe-jafe tabaski maar day taali laa ilaha illallah tabaski bi kon day am ay jafe-jafe ndaxte ministre élevage mi ngi dénk wàllum sàmm gi waaw wax na lu kéemaane de nee na xar boo sàgganee kon dana ñàkk ci tabaski bi laa ilaha illallah te jamono joo ñi ànd président ci wàllum politique waaw ña ngay defante de ña ngay defante de direct info ne ñoom de dañ leen a ne dañ leen a war a dàq kon ci Benno Bokk Yaakaar looloo tax ba waa parti socialiste day Macky 2012 la ñuy tuumaal ne dañuy comploter a uh-huh, waaw docteur Moustapha Samb vice président alliance yoonu yokkute ci tribune yéene kaay ne président daal waaw xam ne ñoom la àndaloon Barthélemy Dias ne au parti socialiste nous ne sommes pas dans une logique de partage de gâteau nekkuñ cax maanaam dañoo nekkul ñun waa parti socialiste dañoo ci ay affaire u séddoo ay séddoo bu ki nekkuñ cax direct info ne université day a boo sàgganee marti itali mu soppeeku sabar gu tas de raggi ren nar naa miti marti la sabab lu ni mel nag mooy inscription yi nga xam ne kon maanaam yokk nañu ko dem naa ca lamb ja tribune sport ne la rose ak papa saw ci ginnaaw giri bordeaux ma ne gis nga siiru yi nga xam ne dañoo ërtal rek tigre de face bi le ginnaaw Gris Bordeaux waaw kan mooy dikk diggante Papa Sow ak Lac Rose sunu làmb ne mbëri yi nga xam ne nag maanaam ñu ngi takk ngemb daal la ñu bëgg mooy arène nationale bi ca technopole ba rek technopole ba rek soxlawuñ ko feneen Lac de Guiers 2 soxna la combat Lac de Guiers 2 daal dankaafu na nee na bu ma toogaatee ñeteelu saison bëréew ma ma santé métier Lamine Koor ak Bac Sera Junior làmb ja taxaw na Cerno Gay Gay production moo fa jaar waaw waaw signature bi ma ne dimanche jii la croisement Mor Fadam 16 heures 4 heures sa ngoon mu doy la doy waar kay ca mbuur gee waaw Mor Talla Niang doomam bu jigéen la doon tëdde i la ilaha illallah ci kanamu jabaram teg ca allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ah doomam bu jigéen ci boppam Mor Talla Niang mi ca Mbuur doomam bu jigéen lay tëdde ci kanamu jabaram allahumma salli ala sayyidina muhammad la ilaha illallah à lundi